jubbanti commerce bi jubbanti bu jiitu bi mooy conseil national de la consommation warta nekk conseil boo xamante ne ministre bu indialee prix yi lu nit wax wax wax wax mënu fexe bañ changer euh, prix yi te pourtant da ngay indi lu leer nañ loo koy tegal lu nga xam ne war na cee tenir en compte mais à la limite dafa mel ni ñun dañuy daje fii wax te wax moom mu ñëw indi ay prix am imposé ko nit ñi Sénégal dañuy yaakaar ñun détail la ñuy def waaye ñun lu gën a métti détail ñun micro détail nañuy def micro détail ça veut dire que bidon diwlin bi da nga koy nattaat ay litre ak ay genn wàll litre saaku ceeb bi jaayoo benn saak bi benn saak bi mooy détail mais micro détail bi moom mooy danga koy peesel kilo libre ak genn wàll yooyu yëpp dafa am ay charges yi nga xam ne ne bu état bi tenirul en compte dafay mel ni ñun dafa bëgg ñu jaay à